de vous lire Disney euh, n'ingé ni c'est di jàppee si li nga ça a été un plaisir Moustapha mhm. je pense que nous nañu aussi vivre euh, vif du sujet bi euh, démarrer par Miroum qui dit à euh, Naboulé, nous euh, démarrons avec ak euh, nous sommes l'observateur l'observateur nous l'observateur Naboulé, une liberté fragile risque de révocation de l'ordonnance de contrôle judiciaire une convocation pour audition au fond euh, imminente mu mel comme euh, Mustapha euh, Nabouleye bi nga xam ne liberté provisoire am bi nga xam ne dañ ko Sénégalais comprendre pourquoi mu am li nga xam liberté provisoire te dégloo gun ko si fond du dossier bi dafa mel comme moom benn liberté bu fragile la ñu am bu bu sukkandiku bu li éléments yi nga l'observateur joxe na ko. en tout cas loolu la mooy li nga xam ne surtout actualité bi ñu dund semaine passée. xam nga c'est une libération boo xamante ne dafa juróon coow. Mm-hmm. ba bi ñu demee euh, nga gis waa famille Naboulay def conférence de presse. Mm. ñëpp wax ne euh, pas pas na famille Naboulay famille Aziz Dabala. def mm-hmm. conférence de presse ne ndaw si ñu génne ñoom yëm na leen. Mm-hmm. parce que niñ ko tuddee ci mbir mi ak ni ci loxoom duggee ak yiñ ci wax yépp ñoom ñu bàyyi ko mu génn nii ne dañ ko may liberté provisoire donte c'est une liberté provisoire ñoom teeyoon na seen xel. Mm. après nga dégg ci ay spécialiste droit euh, ñoo xamné agrégé lañ ci ko ci mel Babacar Niang mm. mbir mi ci euh, ci xelam mm. ba na li tax juge intérimaire bi jël ko d'habitude même si on ñeneen ñoo droit non la mel mm-hmm. ñeneen juge intérimaire mënu mm-hmm. audition sur le fond mm-hmm amna ay préoccupations yoo ko par rapport ak baye euh, bobu ñuko baye mm. ci benen wet nga gis yenen juristes yoo dañuy taxaw défendre né juge bi à tout moment la leen nee pratique la woon audition sur le fond do ko baye neen lolu pratique la mais amul fenn fu ñu bind né dafa am audition sur le fond. Mm-hmm. ba nopi ñu dog la baye nga dem donc pratique bu ñu yagoon di gis la. Mm-hmm. motax ñu né limu def. donte coow bëri na waaye am na sañ-sañ def ko juge mm. intérimaire dafay am prérogative yi juge bi mu wutu am mm-hmm. ñeneen ñi ne déet juge intérimaire bu jëlee yenn décisions yi mën na gene juge bi nga xamante ne mooy ñëw après mm-hmm. donc yooyu moo waral coow li bëri si ba nga xamante ne ñu bëri jàpp na liberté bii mu am ni amaana buñ mm. fa tabee juge boo moytul dana révoqué ko li nga xam moo di contrôle judiciaire bi mm. wala sax yéenekaay bi nee na bis bu ratee signature ba mën nañ ko mën nañ ko révoqué delloo ko ci biir kaso bi maanaam bu ñu la defalee par semaine ngay ñëw wala par 15 jours wala par mois bés buñ lay gisulé bu ko nexé juge mu dem jëli ji la. Mm. Euh, dal di lay daal di lay delloowaat mandat de dépôt automatiquement. Mm. donc lolu moy euh, préoccupation yi nga amna ci légui nak ñeneen ñi benen crainte biñ ci am mooy trouble à l'ordre public biñ ci xalaat. bayé nañ ko mais amna na ñoo xam ne tey jii yaa ngi déggoon ñu ne mm-hmm. bis bu ko séné Pikine du yomb si mom amna ñom lolu lañ wax lolu motax nak ñu né parfois niki buñ koy bayyi mm dañuy xool trouble à l'ordre public fu mu toll xam nga nit yenn saa yi dinañ ko tudd si koñ ci faat ba kenn mm. te yàlla xam na ne faatul dëgg la de mais jàmm mooy mu toog ci kaso bi mm. parce que amaana bu génnee dañuy obligé defal ko voyage mu dem feneen wala mu dem neneen ak neneen parce que am na bët bu ko xoolee am na fu ñu ko teg foo xamante ne tey jii vengeance bi yu nekk mën na see am après donc loolu moo tax ñu bëri doon sóor ne euh, bàyyi nañ ko waaye jur na te yooyu nag dafay ay suspicion yoo xam ne pour man baaxul si yoon sax en plus la population sénégalaise euh, dañoo japp ne ñu képp koo xam ne rek euh, jàpp ne la pour euh, benn besoin de l'enquête yow euh, tu es coupable nit ki mun mm. ne la yóbbu pour prison te fekk boobu yow tu n'es pas coupable mm-hmm. après bu ñu xoolee si li nga xam ne moo nekk enquête bi mm-hmm. mun nañu libérer loolu aussi il faut ñu bàyyi ci xel parce que mm-hmm. boo déggee famille bi dana la carrément wu tax ñu jàpp ko ba pare bàyyaat ko là aussi ça pose problème Moustapha waaw loolu moo gën a métti famille bi parce que ñoom neen li tax ñu bàyyi ko ñoom lañ xamul fu ñu ko teg mm comme yoon def na maa ngi lay expliquer léegi agrégé bi nga xam ne wax na ci juriste bi. Mm. ak ñeneen ñi nga xam ne dañ koo weddi ci beneen wet bi jàpp na non c'était une pratique boo mm. xamante ne il n'est pas tenu pour mu respecter ko wala yu ni mel ak yooyu. Mm-hmm. mais ak lépp lu ci mënta am liberté la boo xamante ne mi ngi def polémique. te polémique boobu mu def baaxul parce que dafa am dossier yoo xam ne. dossier bi dafa am police scientifique dafa nekkoon sa TikTok benn instant entre guillemets mm-hmm. comme si TikTok bi la nekkoon kon loolu tey jii am na lu bëri benn doxalin boo ci am rek gis nga manque de confiance bu commencé duggaat ci justice rek jeex na. Hmm. li muy yàq moo ëpp li muy bizarrement on a on a entendu des euh, avocats yu sérieux yoo ah xam ne tamit comprendre pourquoi elle a été libérée. mais ñu bëri comprendre poste maître Khoureychi Ba bi. dafa dafa dafa am lu bëri lu mu yëkkati ci biir réseaux sociaux mm. eh, D'accord, d' accord avocat famille bi la avocat wu euh, famille ñoom Aziz Dabalale et tout ça euh, parce que avocat client am lay défendre et tout mais li mu wax tamit dafa dafa dafa dafa yenu maanaa. Mm. moo ma jàpp ne c' des choses yoo xamante ne pour man lépp lu ñu ci def mënees na koo leeral expliquer ko ba mu leer ko kororoj su ko defee ñu xam. carrément que ne euh, yoon nekkul di jeng wala yoon nekkul di xëtt parce que sentiment yoy bu amé rek li jur après mo baaxul mooy yoon a ngi jeng yoon ngi def nii yoon a ngi mm. faral kii yoon a ngi àndal kii su fekkee ne dañ ko war a bàyyi concrètement nañ teg si table ay argument yu dëgër mm. yu wan ne dañ ko war a bàyyi mm. suñ ko warul bàyyi nag ñu gis ne a yoon mais dañu bëgg fajal seen bopp parce que dañ naan boo ko yóbboo suba dañ koy bàyyiwaat loolu benn moment fii nga fi gis buñ jàppee sàcc wala agresseur yenn ko dañuy dóor ba mu dee parce dañ naan boo jàppee rek après quelques mois après nga gisaat ko mu génn te def na def fi. c'est nit ñaari jeune nga fekk leen seen kër jam leen faatu ngeen kër gi dem ba il a fallu du du temps ñu gis ne ñii gisatuñ leen. dem def enquête ba commencé am ñu japp ben par ben ben par benn. Mm. donc je pense que tout ndaw lo xamante euh buñ ci andul ak euh, célérité bi euh, mën na yaq te justice sax lay yaq ci tout à fait. on a oublié euh, sama chéri sa wolof. ah Alaaji Sa Alaaji Sa wolof Alaaji Sa wax nga dëgg ji saa jaar na fi yu bëri. Imam Khalifa aussi Imam Khalifa aussi. Imam Dramé aussi. Imam imam aussi mais <laughs> au fur et à mesure <laughs> affaire yi euh, vraiment euh, si sa c'est euh, vraiment si ñun la bokk. aussi. il est extraordinaire. il est tellement généreux si il de toute façon T3B moom jàpp journaliste en fait parce que. Hmm on a des journalistes yo xamné ne ci ay polémique les gens les respectent euh, voilà Comme comme ay Mustapha les mm. gens